يوم مسلم صلى الله عليه وسلم من كل وصف طيب حاز اسم التفضيل النبي صفوة كل أطيب من عرب وعجم بما سرين جبريل ووي فك ماغي دكار ci biir semaine bi mu ne ma aji far si sédé nee na war na la ba sonn yaa ngi koy jaay nag ndongo yi mu ndongo daara wala que tey dama fay newul rek bon maa ngi ca àllu Saloum ba xam nga nag damay bay yàlla xam na ko waaye bi mu ma nag lii lañ bëgg a waxtaane ma ne xaaral kon ma ma def ci benn xasida ndax bu ma fàtte thème boo defee luñ ci am rek mu doy ndax yonentu moom sallallahu alayhi wa li imam Busiri wax ne lawlaahu lam tuxraji dunya min al adam